ci xibaaru jaww ji ak euh, météo bi mu mel ni euh, euh, tey jile température yi également ci suba gi dina xaw a yemamaay ci yenn yi parti yi waaye nag fi gën sedd ñu ngi ko am ci diwaanu Ziguinchor mu ngi ci 18 degré c'est la minimale san louis ak Ndakaar ñoo ci topp ak 19 degré su weesoo foofu tàngaay bi mi ngi ci biir réew mi ndax fu ci mel ne fi nga xam ne moom mooy Kédougou ñoom ñoo jël la maxi ci suba gi ak vingt 26 degré Gorée Tambacounda 25 cinq euh, également ci diwaanu Kaolack euh, euh, feneen fi muy Njaareem Euh, Fatick ñoom ñi ngi ci vingt deux 22 degré 23 également euh, ci euh, diwaanu Kaffrine ñu xool après-midi bi température yi également naka la tëddee voilà la mini ñi ngi ko am ci Ndakaaru Ndar nag dafa mel ni day tàmba tàmbaalu ndax mi ngi ci 40 degré dans l'après-midi 39 ci Matam 41 ca Tambacounda Kédougou 42 fu mi nga xam ne nag moom mooy Fatick moom 43 donc. la maxi ñu ngi ko am diggante Lougaloo ak Fatick ñoom ñu ngi ci 43 euh, degré ci euh, suuf itam ci bët saalum bi xaw na euh, tane ndax Ziguinchor moom ak Kolda ñu ngi ci 39 degré ñu dem xool lu jëm ci wàllum marée yi ak soleil bi écran baa ma koy defati wala manular waaw voilà donc ñëw na c'est bon <laughs> ñu wax ci wàllu marée yi euh, marée haute bu njëkk bi a ah, jàll na bi ci topp 14 heures et 51 euh, minutes la marée basse bu njëkk bi ci kanam tuuti la 8 heures 2 bi ci topp 21 heures 23 jant bi. Euh, moom euh, fenk na bi 7 jotee ba tegal euh, juróom-ñetti simili bu ma def nii waay comme benn rek moo ci des demal dafa mel ni tey écran bi defaat na ma ko da temps yëpp damaa aayoon mais delluwaat naa fa ma nekkoon en tout cas jàpp leen ne jant bi dina fenk bu 7 heures jotee ba tegal juróom-ñetti simili dina soow tey 19 vingt deux minutes léegi léegi ñu dalal Marcel ci un jour une